mbokk internet di jaar naa leen mbaa yéen a ngi am jàmm tey yàlla indeeti na comme d'habitude sama gaay lii benn waay la ndeysaan waa ji nee na dafa nekkoon Algérie nena bi mu nekkee Algérie mu jékki-jékki benn doomu bàjjanam ni ko sa tante diw de mi ngi lay laajte ndeysaan nee bi doomu bàjjan bi insisté ne ko sa tante diw mi ngi lay laajte nee na ci la ko waxee su fekkee am nga numéro tante diw boobu nga jox ma ko ma nuyanteeg moom comme saa su ne mi may laajte di neem di xool ci lan laa nekk loolu lu rafet la nee na doomu bàjjan bi ni ko numéro tante diw yoruma ko waaye numéro doomam bu jigéen yor naa ko ndeysaan nee na ma soxna Faatu ma daan ne ko donc jox ma numéro doomam bu jigéen bi ma jaare ci doomam bu jigéen bi daal di koy nuyu nee na ma bi loolu amee mu jox ma numéro xale bu jigéen bi ma commencé déggante xale bu jigéen bi laaj ko yaayam nee na ci biir ma ko laajee yaayam mu paas ma yaayam ma nuyanteeg yaayam nee sama gaay yi ñu commencé man ak moom di déggante di déggante ba mu yàgg rekk sama gaay xam ngeen ne <laughs> góor ak jigéen bu yàgg a déggante nee na ndaw si daal di koy séduire ci diggante bi ñuy déggante nee na ñoom ñaar ñu commencé bëggante ma ne ko cey loolu mhm. bala ñoo ñëw ci bëggante ba ñu commencé bëggante léegi nee na bi ñu commencé bëggante ñuy génn génn goo xam ne à distance la moom mi ngi Algérie ndaw si mi ngi Sénégal ñuy déggante ci téléphone nee na ndaw si toog ba mu yàgg di ko ñaan ay connexion nee na mu koy dugalal di ko dugalal xaalis ndaw si di jënd connexion ba mu yàgg ndaw si ne ko est-ce que sax doo ma wutal wifi nee na ma daal di wutal ndaw si fi mu commencé di connecté wu nee ak moom daal ñuy bëggante ci ci ci ci téléphone lu mu soxla aussi mu daal di ma koy wax ma daal di ko koy defal nee na ci biir noonu ma daal waxtaan ak moom ba ñu déggoo ci pour ma takk ko nee na bi ñu biñ ci déggoowee man tamit ma daal waxtaan ak ay mbokkam ay mbokkam nangu pour ma takk ko nee na soxna Fatou jour biñ ma ko mayee dama ne woon na sëy nee na ndaw si daal di may convaincre ne ma mënuma sëyi te yow mii di sama jëkkër nekkoo fa bàyyi ma fii ma toog ba yow nga nga ñëw boo ñëwee nga muur ma ma sëyi ma ne ko waa loolu mu ngeen ci d'accord amul problème nee soxna si ci diggante bi ma koy yónnee xaalis ndax takk naa ko pare léegi sama soxna la nee weer bu deewee ma yónnee ko xaalis comme ni jëkkër ak jabar di dundee nee na ci diggante bi ñu daal di may répartir maanaam génne ma Algérie ndax aw ma këyit nee na ma ñibbisi nee bi ma ñibbisee affaire yi dëgër situation yi metti dew ma kut kookut dem gisi ndaw si parce que ni ma ñibbisee moo ma neexul léegi nag ma toog maa moom 15 jours yoo xam ne gisantewuñu mais ndaw si moom xam na ne man ñëw naa mais dañ doon bañ affaire bi siiw moo tax ma yemale ko woon sama digganteeg moom nekk jarul sax mu koy wax ay mbokkam mais nee na ma soxna faatu ci diggante bi ndaw si insisté ne seen waa kër man ñëw naa dafa bëgg a gisee man fekk ñëw naa Sénégal pendant 15 jours gisante wuñu bi mu ko waxee magam bu jigéen mag bu jigéen bi ne ko ah sa jëkkër la boo bëggee gis moom lu tax mu ñëw sax yëgluwul mais bu dee dangaa bëgg a gisanteek moom fexeel nga gisanteeg moom nee ci la suñu seen waa kër insisté daan ne ma naa ñëw gisanteek moom ak nu ma mënti ñibbisee rek man naa ñëw ndeysaan cey yàlla ma ne ko ca cey ma ne ko ca takk ma takk ma boo gis cey yàlla yeey cey yàlla mm. sama gaay kafe gi neex na de mbaa yéen a ngi naanandoo man kafe ndeysaan nee na ndaw si insisté ba ma dem pour gisanteeg moom so sama gaay nee na bi ma demee man ak moom ñu ànd feneen parce que nee na comme xam naa sama bopp sama poos diisul ma yóbbu ko feneen te moom sax moo insisté pour mën ak moom ñu gisante ñoo <laughs> jigéen a bëri pexe sama gaay ndaw si waa ji nee na ñu dem ma tëdd ak moom ñu yeewu fajar rekk ndaw si commencé jooy naan yàlla xam na ne musuma tëdd ak góor góor musuma laal góor musuma jege moo waay ku moom xar mi nga bàyyi buum bi waa ji nee na ma xool ko xam ne day lay rekk ndeysaan day lay rek nee na koy déglu rek muy ratatati rekk nee na ma déglu ko mu jooy wax ba pare nee na mu jékki-jékki ne ma léegi dama laa ñaan woowal sama pàppa nga ni ko am naa ndaw <laughs> sama gars yi Sénégal neex na waa ji tamit moom it au lieu mu def ko yëfi góor waa ji déggal ndaw si nee na yee yaay da koo bëgg da koy suturaal waa léegi yow boo koy suturaal d'accord mais yow tamit ku la bàyyi nga woo papa ji naan ko am na ndaw pour bëgg lu neex jigéen jigéen boo ko tàmmalee benn affaire su paree sa digg bopp bii lay toog nee na ma ne ko léegi yow bu ñu woowee sa papa ne ko am nga ndaw léegi sër bi amul tus suñ ko yóbbee dañuy xam ne amoo ndaw sama gars yi laaj leen ma lu ndaw si def waa ji nee na nee na ndaw si convaincre ko ne ko am naa sama benn xaritu infirmière nañ ko woo mu aspiré ci sama deret daal di koy takkal daal di ma koy jox bu ñu paree takkal ko ci sër bi ñu yóbbu ko cey yàlla ma ne ko ca cey lu ko fi jar yéen yéen yéen yéenu neen la kenn fekkewul su ngeen bëggee suturaalante c'est pas forcément ngeen yëgal nit ñi am ngeen wala amuleen yamale leen ko foofu mais pourquoi la tappale tappale bi pour lan nee na ñu dem woow woowi infirmière bi nee na moom loolu lépp ci bëgg suturaal ndaw si infirmière bi ñëw aspiré ci deretam ñu taqal ko ci ci ci sër bi ñu jël sër bi yónnee ko yaayu ndaw si te nee na avant boobu woo na papa ji ne ko xol sedd na guy moo waaye fu xol seddee yow it sama waa ji ndeysaan waaye nag noonu la da nga daan da doon suturaal sa sa sa sa jabar ndeysaan nee na ci noonu bi mu suturaalee ndaw si après nag mu dëgër bopp ne moom il faut que mu lijjanti dellu fa mu delluwaat tukki ndax fii bu fi toogee amul liggéey day metti nee yóbbu nañu service seen waa kër kontaan nañu dugg nañu ci lu ne te waaye moom xam na ndaw si xam na ma ne ko ci cey yàlla cey sama gars dans une minute on va boire le café ensemble sama gaay yi ndeysaan ci noonu moom it mu ne comme situation yooyu yëpp jàll na day lijjanti nu mu delloo wuti liggéey ndax moom kat bu amul liggéey day metti ci moom nee na nag ci biir noonu rek mu kërti kërtiwaat ba duggaat Algérie ñu ne bi mu kërti kërtee ba duggaat Algérie comme dañ ko génne woon mu doon làqatu bañ ñu génnewaat ko ñu ne ci na benn sénégalais profitoo ci loolu ne ko am na ay gars yoo xam ne ñu ngi Sierra Leone soo jaaree foofu di nga am liggéey parce que sénégalais yi ma fa yóbbu yëpp am nañu liggéey ndeysaan c'est que sëñ bi nag yow dangaa neex a manipuler de nga baal ma nag yow sa jabar ji manipuler na la nga woote naan am na ndaw te amul juste ci ay pexe jigéen ba tey sax loolu mënees na koo comprendre waaye kaay ma yóbbu la ci ay diw boo demee di nga am liggéey jamono ji loolu jarta ndeysaan nee na waa ji daal di koy lijjantiloo six cent soixante mille francs CFA mu lijjanti six cent soixante mille francs CFA yi daal di lijjanti ko pour mën a dem Sierra woon wuti fa liggéey comme ni ko kooku waxee nee na mu woon ndaw si mooy jabaram ji nga xam ne moo ne ko woon woowal sama papa nga ne ko am naa ndaw te amul ndaw nee na ne jabar ji yónnee ma dossier yooyu nee na jabar ji yónnee ko ko nee na bi ko ko jabar ji yónneewee mu def la tout ba egg ca fa ko waa ji waxoon muy siyaaraale woon boobu waa ji ne woon ko boo fa jaaree di nga am liggéey sama gaay ay ca ñu naanandoo kafe cey yàlla ma ne ko ci cey nee na ñu egg mu egg rek ñooñu ne ko fii pour nga liggéey faa nga joxe caution cinq cent mille francs te nee na 660 mille yi mu yoroon dépensé na ko ci voyage beeg yëpp ak xaritam boobu doon ko jàllale Sierra woon pour mu am fa liggéey nee na yoratul un franc nee na te Tabaski mi ngi doon jub si mu war a yónnee soxnaam ak yeneen ak yeneen nee na ñooñu ne ko 500 mille nga doog a liggéey nee na mu ne leen su ma xamoon ne lii la du ñëw ndax man awma 500 mille yu ma leen jox Tabaski ngi waaj a ñëw dama faa am jabar ak sama waa kër ma war leen a jàppale aw ma 500000 yu ma joxe nee na ñooñu ni ko 500000 yi woowal sa jabar mu yónnee la xaalis bi wala sinon fii dootoo fi génnati mu ne ma soxna Faatu ndekete yoo ndekete yoo ñooñu ay arnaqueur lañu ndeysaan. nee na ma ne leen sama soxna amu ko ndax man sax maay lijjanti at kërti kërti des fois yónnee ko pour lu mu dundee kon aw ma lu ma lu ma lu 500000 yu may yónnee. nee na gaa yi ni ko léegi sax booy dem foo mënti demati dañ lay toog duñ la bàyyi yow kese nga dem tant que 500000 yi ñëwul. nee na soxna Faatu ma xalaat ne ñii négocier bi yëpp pour 500000 yi ñëw la mais su ma fi yàggee dinañ ma commencé torturer te aw ma ku ma ku ma yónnee 500000 te man it duma woo samay mbokk di leen ko wax di leen lor te man ma nekk soutien de famille waroon leen a jàppale. ñu ne ci laa d'accord rek ñoom toog ba benn timis rek ma leen. ne leen damay julli ji jumaa ñu ne ma demal xam naa boobu dañu jàppoon ne aw ma fit ndax niñ ma doon nappee may ragal ragallu ne ne bi ma génnee dem di julli ji timis rek nee na ci laa dawaale daw topp àll bi nee na ma guddi googu ci àll laa fanaan di daw di daw ba fajar gi jot nee na mu ñëw ba ci benn tali mu seen benn moto di ñëw mu arrêté moto bi expliqué ko biir temps woon la jëm dafa bëgg a dem laaj ci consulat Sénégal bi fan la nekkee ndax dafa bëgg a rëcc nee na waa ji ne ko yow de am nga sens ñii de buñ la jàppoon buñ bu ñu toogoon ba affaire yi passé dañ lay rey mbaa ñu am nuñ la def nee na waa ji dimbali ko mu dem ci consulat bi mu ñibbisi waat senegaal nee na ma ñibbisi waat senegaal ma rusa demaat nag cette fois si kër ndaw si parce que yoruma dërëm dërëm dërëm te xam na bee ñëwoon naa gisante ñu ndaw si fexe ba ñu gisante ba ne ma naa woote ne am na ndaw mu ne bii nag ma ñëwaat ñëw bu gën a garaaw nag ma ne bii moom duma duma dem ñu gisante nee na ma waaye ci biir gisante wuñu boobu su ma kërti kërtee ba am sama cent 100000 francs yónnee ko soxna si su ma kërti kërtee des fois ba am sama 150000 yónnee ko soxna si mais nee na ma soxna Faatu ndekete yi may yónnee yooyu yëpp ndaw si musul wax seen waa kër maa ngi koy yónnee dafa ne woon seen waa kër rek man dañ maa rapatrier yoruma dara yónneewuma ko dara seen waa kër tamit gëm ko te fekk maa ngi ko doon yónnee ay cent mille ay mille maanaam lu ma yàlla wërsëgale rek ma jël xaat bi daal di ko yónnee ma ne ko cey yàlla ndaw soosu kat war ngaa xam ne ab paccal foroxkat la nag wax dëgg yàlla ku la ne woowal sam papa nga ne ko am naa ndaw te amul kat yowit yowit sëñ bi nag am na yoo xam ne bu ko defee waru laa bett nee na ci noonu ndaw si musul wax loolu ne na ma toog ba mu yàgg rek ndaw si ne ma dama ëmb nee na te dewuma seen kër de ma ne ko yow nan nga ëmbee ba ma fi jógee ba tey nga ne dangaa ëmb nee na ndaw si ne ko damaa ëmb nee na boobu moom it mi ngi kërti kërti ba tey mais nanguwula ñëw kër ndaw si ne na ndaw si toog ba mu yàgg woowaat ko ne ko dama avorté mu ne bi ko ndaw si ne damaa avorté nee na am ku ne ko ndaw si dëgg la ëmboon na mais lim la waxee ne dafa avorté du dëgg ndaw si da ne ko damaa duggoon ci toilette di tuur ndox daal di gis deret nee na keneen ki woo ko ne ko waxul dëgg dafa demoon benn dëkk naan day dem ay jàng mu daanu fa daanu bu metti ci la avorté nee na ma soxna Faatu lijjanti naa sax jamono yooyu bi ma bi ma ndaw si confirmé loolu ma yónnee ko cent mille francs pour mu faju mais nee na ndaw si daal ci ay wax lu dul dëgg rek la dëkkee man ma ne ko warulaa bett warulaa bett sëñ bi nee na ci noonu gisantewuñu gisantewuñu ba ñu tase fi benn euh, genre feet bu amoon comme ñun suñu feet yi am rek ñu tase ñu tase ca dëkk ba ñu demoon ñu ne bañ fa tasee ma gis ko mu gis ma nee na ndaw si jékki-jékki di insisté waat comme nam ma defoon ci bu njëkk ba ne ma ñëwal kër ga yow li ngay daw du dara ay yoroo xaalis ak yoroo lii ñëwal sama gaay waa ji ñàkkaat fayda non sëñ bi nga baal ma mais yow tamit nag fa dégg yàlla xaw ngaa faible de ay ca sama gaay yi ñu naan waay tey moom fa ñu naan rek mooy loolu nee na ma dem bi ma demee ndaw si irima ci néeg bi irima ci néeg bi fexe ba sekk man cukkum njaay cay yàlla ma ne ko ca cay nee na ma ñibbi 14 jours après 14 jours après ndaw si woo ma ne ma dafa ëmbaat ma ne ko yow sëñ bi ndaw si doyewu la dara de ndaw si moom bu la soxlaa utiliser utiliser la su paree sànni la quatorzième jour boo xam ne ci ngeen def rapport sexuel ëmb mënagu faa manifester bu dee ci ci jour boobu la ko jël mu mënagu faa manifester moom bala mu koo xam sax il faut que datu si dellusiwaat mu doog a xam ne moom mii weer bi gisul fóot mu xam ne kon wan na na lor ah kon de moom yàlla may na ko waaye nag xëy na ku nekk ak nooy manifester nee na quatorzième jour après ndaw si woo ko ne ko damaa ëmb nee na bi ko ndaw si waxee damaa ëmb nee na affaire bi xaw koo jaaxal mais nee na moom comme dafa bëgg ndaw si rek muy suturaal ndaw si ma ne ko cëy mbëggeel mbëggeel dina leen rey de bala maa deere ngeen naan dama bëgg ngeen di bëgg ñu leen di waye di loo di leen ñàkkuloo fay la ngeen topp ci naan dama bëgg am leen fulla tuuti ay mbëggeel jaru ko nee na mu toog ay fan bi ko ndaw si ne dama ëmb ndaw si woowaat ko ne ko dama ëmb waaye may ma sama baat ma ne ko kaaw téef ndeysaan kon xam nga ne kii ëmb bii mu ëmb ëmbaloo ko ndax dama ëmb may ma sama baat xanaa bala ngaa ñaan baat sax nga xaar ba yàlla may la jàmm nee bi ndaw si waxee loolu affaire bi jaaxal ko nee na mu ne moom day dem ba kër ndaw si mu xool lan moo waral ndaw si woo ko si ko ëmb ba pare teg ci quelques jours ne ko may ma sama baat nee na mu ànd ak benn xaritam boo xam ne xaritam la mais jarbaatam la parce que ñoom ñaar ñoo maase nee na bi ñu demee mu ñëw wàcc ci moto bi mu yéegoon rek moom dafa ñëw rek jubal néegu paa bi nee na xoolul sax ndaw si mais bi ndaw si génnee gis leen ndaw si dafa mel ni ku affolé nee na mu jubal néegu paa bi di wax ak paabi bi nee na paa bi ne ko bi nga bi nga ko takkee ba tey mosoo koo defal dara déjà ndaw si mooy paccal forox yi mu doon paccal forox léegi ci noonu nee na paa beeg mère bi di ko xas di ko wax mu xamal leen ne doon na ko yónnee mais ba tey ñu comporté wu comme ne ñoom gëmuñu ko mais nee na ma soxna Faatu loolu yëpp du kaa de ndekete ndaw si bi ma wàccee ci moto bi man xooluma ko ndax jéppi ko dugg néegu paa bi sama xarit bi ma àndaloon muy sama jarbaat nee na gis na benn waay génnee ci néegam te waa ji faram la ca yàlla nee na li ma ci jaaxal ay papaam yaayam xam ne ne dafa nekk ci buumu jàmbur ba pare ñu bàyyi ko mu fat góor néegam nee bi ma sama xarit bi suuflee loolu nee na mu daan ne yaay ji kii dafa am jëkkër ngeen koy seetaan muy am far ñu ne yaay ji ne ko non benn xaritu xawma lanam la da ko doon faj fii la xar yi jaar nee na yaay ji ak papa ji di ko suturaal ci njuuñ njaaj yooyu ak tappale yooyu di ko bàyyi muy indi ay far ci biir kër gi ndax nee na après am na ku ko woo ne ko yow sa jabar ji ba nga ko takkee ba ni nga demee ay góor rek lay nekkal nee na nag ci la xel mi delsee ma ne ko noo yow sëng bi nag ku neex nga yow ku neex nga ñu ne ci la xel mi delsee bi muy delluwaat Algérie mooy bi bi mu jëlee ndaw si ba pare te ndaw si ne woon ko suturaal ma ne sam papa am naa ndaw ci la xel mi delsee jour bi ko ndaw si du gungewaat pour mu delluwaat Algérie nee na guddi la woon nee na ndaw si ànd ak moom presque ba ay une heure matin gunge ko nee na mu ne ndaw si waa léegi yow boo ma gungee kan moo lay yóbbu une heure du matin wóorul nee na ndaw si ne ko sama benn xarit moo may jël si bu tudd boogaa cay ko ca cay ma ne ko boogaa de du tur boo boogaa moom du tur nee na man ma bàyyi ma ne ko yow sëñ bi dal nga xel de yow bàyyi sa jabar une di du matin mu naan la góor a may jëlsi ba pare joxu la vrai tur di la jox ay turu nakk sa xam nga ne loolu tur loolu surnoo la nee na mu bàyyi ndaw si dem nee na ci la xel mi dël see nag kon waa jooju jël si ko woon naka jekk faram la ma ne ko yow kay sa jabar yaa ko livré une di du matin looy nangoo mu di la gunge ba naan la ku tudd nangam moo may jël si yóbbu ma ma ñibbi ba pare nga nangu mu ànd ak góor heure boobu di ñibbi nee na ndax après loolu rek première ëmb bi après loolu rek la ko jabar ji woone ko damaa ëmb kon daanaka moom mun na waat ne ëmb bu njëkk ba sax juru ko ndax nee nañ ko sa ndaw si depuis bi nga ko takkee ba jël ko ba dem ba léegi mi ngi fréquenté diw ak diw te nee na diw ak diw moom waa ji ko gunge woon it ci la ñu bokk te sax waaja mu fekkoon ca néegu ndaw si diw boobu la nee na ma soxna Faatu papaam ak yaam di ko jàppale di ko màkkaroo ci loolu nee na ndaw seeg ëmb bi ndaw seeg ëmb bi te man la woowoon ne ma dama ëmb may ma sama baat de mais nee na après woowu ko laaj ko ordonnance woowu ko laaj ko dara nee na ba ndaw si tollu à mu war a am doom nee na ba tey rek muy espérer ne xëy na deuxième ëmb bi ëmbam la ndax bi mu ñibbisee voyage ndaw si fexe na ba iri ko nee na ndaw si di am doom ndaw si woowu ko sax ne ko maa ngi am doom ndaw si waa jooju mu ne woon moo ko gunge ak yeneen xale yu góor yi koy fréquenté ñoo ko yóbbu hôpital ndaw si am doom nee na ma ba fii may waxeeg yow xale bi woowu ma ne ma am naa doom am na doomam papaam yaayam jàppale ko ci njuuñ yi te ak nu mu mënti demee sax même bu fekkee ne man ëmbaluma ko ëmb bi ci sama buumu sëy la amee mais papaam ak yaayam daal jàppale nañ ko ci tappaley naan ma musoo koo defal dara fii la xari jaar fii la nag yi bëttee sama gaay yi cey yàlla ma ne ko ca cey hmm, ma ne ko sëñ bi xaw ma lu la mbokk internet di wax de mais daal ñuy jàppal ne dañ la doon manipuler ndaw si amul ndaw bëggoon na nga sauver ko mu am jëkkër buy amaat jëkkër beneen yoon ñu ne amoon na jëkkër ba pare moo tax amul ndaw maanaam ndaw si daal dimbali nga ko ñëw nga waye di loo sa bopp ndaw si profitoo ci sa waye di daal di lijjanti soxlaa man noonu rek laa ko mën a canaliser nee na ma nii la ko ndaw si def ba pare lekk xaalisam di ko yónnee ay cent mille ak cent cinquante mille nee na li ko ci gën a naqari mooy ndaw si ba fii muy wax ak yow mayu ko baat te ndaw si am na doom mi ngi ànd ak ay faram di lonkoo di dem di def lu ko neex mbokku internet yi nee na papaam ak yaayam daal di ko ciy far léegi nag lii mooy histoire waa ji maanaam waa ji daal daj na li mburu di daj ci taal voyagé na ay yoon yoon di am ab weccet mais weccet yi muy am benn jigéen la ko doon xëpp jigéen boo xam ne sax bëggu ko utiliser ko naan ko woowal sama papa ne ko am naa ndaw fii la xar yi jaar noo man wax dëgg yàlla man des fois am na kaa yoo xam ne daf may jaaxal góor te temps yi yéen góor ñi lu leen dal temps yi temps yi ni ngeen feebulee ëpp na de ngeen baal ma wala du yéen ñëpp kaa fi am yëpp ay góor yoo xam ne seeni jabar dañ leen di manipuler nii rek lii lu mu doon nii nag ah bañ leen tuuti nag lii dafa yomb yow ba mu la woowee rek ne la neel sam papa am naa ndaw te amul ndaw moom kay bi nga eggee ci moom xam ne amul ndaw daa waroon a ne tekk bu doon xale bu am bu bu wowul bët la bàyyi la yow nga réagir ba xam danga ko koy suturaal wala doo ko suturaal waaye mu lay manipuler naa la woowal sama papa ne ko am naa ndaw woowal infirmière mu aspiré sama deret yooyu yëpp nga ànd ceeg moom kon njuuj njaaj yi bu la ko defee sëñ bi warulaa bett léegi nag comme lii mooy sa histoire ndaw si mayegoo ko baat mu ngi lonkoog ay faram di def lu ko neex boo ko internet di dinañ la xelal mais kooku daal li gën a garaaw rek li gën a logique mooy nga may ko baat nu golo xam bootee doomam mu dem nga dem parce que moom sax génne na la ci doom ji nee la dama ëmb may ma baat neewu la yaa ko moom neewu la moomoo ko damaa ëmb rek may ma baat la la ci tegal continuer nekk ak ay faram mbokk internet yi lii mooy histoire waa ji ku am loo koy conseiller nga conseiller ko ndax man moo wax dëgg yàlla histoire bi tamit xaw na maa jaaxal sama gars yi torop sax torop ma leen di jaajëfal bu baax a baax di am mbégte saa su ne di jàkkaarloo yéen rek ci seen émission nettali di nuyu suñu DG Sey Latir di nuyu madame Sey ci beñe dugub bi macha allah beñe dugub bu bari la ma jox ma lekk ci ba suur maak faal dammel dama fàtte indaaleel stagiaire yi nag ak ñoom kanal ñoom ñooñu yéen a ma gën a xam waaye subaay dàq bu soobee yàlla di nuyu bas filiperi bas ah bas yow lii lan la boo lakkee dëkk bi tubaab bi jàpp la de bas di ma génne ci oo yu am solo yii macha allah yéen a ngi koy lug oowu grande daam yu am jom mu ngi fii ci marché central bu Thiès ku ci bëgg rek mun nga woote ci 78 635 41 80 bas dina la jaay oo yu rafet macha allah mi ngi fii rek ci marché central di nuyu Khadija Khadija Lawel depuis Fouta moom tamit maa ngi koy ziar bu baax a baax nee na mi ngi seetaan émission nettali kanasatu laa koréen moo nekkoon na ci caméra bi ñu ngi koy ziar bu baax a baax di ziar équipe technique bu Thiès Info yëpp dem Diouf duñ ko fàtte benn yoon di leen joxaat dig daje ci yeneen i nettali D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur Thiès Info. ñu daal di koy terminer ak suñu kaasu café